ñaari membre sécurité bi muy ku ñu wax Ama Ndaw ak ku ñu wax Moussa ñoom ñëpp nag en plus liggéey bi doon def yàlla dafa def ñu nekk aussi mën ne ay euh, ñu liggéey après un mois deux rek dañ gën a sax adopté poste bi gën la koo bëgg euh, Fall nag yàlla dafa dogal ni euh, Pastef Dakar mu repéré ko indi ko communication bi def ko photographe ak vidéo présence mu nekk kon koo xamante ne nii mu wax ne mënuñ ko remplacer mais du jot du yomb ndax en plus de son dafa nekkoon jeune bu am nekk mën a cultivé journalisme ak patriotisme da si côté Afrique di wax ci ak ay idéologue ak ñoom nekkoon aussi nit discret xëy na parfois boo ko daan boo ko daan wax moom sax wala doon reproché dara discrétion nga koy reproché naa ko photographe nga gën a jaxla mais moom euh, dafa amoon discrétion yéeme mais nag engagement mooy ça fait quatre ans cinq ans amul benn activité wu Pastef boo xamante ne nii wax nañ dara mais parfois moo may woo ne am na activité bëre ndax mën naa dem ci nekk lu mu gëmoon lool bu jaree fanaan siège ay jour da koy fanaan ndax day photo ñëw monté envoyé événement maa si weesu pendant un mois kër Ousmane fanaan ndax bañ benn événement rëcc ko euh, donc bii passé tamit noonu tàggu na ma ne maa ngi dem Ziguinchor ma ne ko d'accord yoonu jàmm et cetera def na liggéey bu mu sotti na li ñu def yëpp envoyé message ne ma photo yi monté nañ ko yónnee naa nekkoon ci ci réseaux sociaux yi di siiba ñëpp ndax ñi fi teewoon ne tey xëy na xaalis sax bu ñu ko seen c'est juste dimension nit ki la ndaw la mais man bu ko jegee xam naa ne kilifa donc di ñaan yàlla mu xaare ko aljanna mu euh, xaare aljanna aussi ñoom ama ndaw ak euh, Moussa Camara ci situation yi métti dem nañ seen kër yi yëpp mais xam nañ ne jóge waaye tamit yi euh, euh, nga xam ne mu nekkoon seen dërët ñu koy wax li ci dox bu dégg ba jëkk yàlla def ñu ñu koo yegg gi ba ñoom fa ñu nekk ñu am yëg-yëg ndax euh, di faal tàggoo parce que bi ñu liggéeyee ba pare bi xeex yi di am ci aéroport bi woo def attention kii ci bi ñuy reporté parce que moo doon filmé di reporté mais tontoom gis nañ ko mooy man soldat la su dee dee naa ci toolu xare bi tamit ñeneen dinañ jël drapeau yeggali ko ba deux mille vingt loolu message jël lancé donc xalaat ñu woon ne mu koy wax ci ëllëg sa nekk loo xam ne tamit souvent les grands hommes ñoom ñoo demee noonu les grands hommes. tey ban taxawaay la parti di Pastef fas yéene taxaw ci ñooñu nga xam ne ñoo génn àdduna tey. waaw Pastef moom Pastef moom ba ñu commencé ba léegi lu weesu ñu génn àdduna lépp xew ci parti bi ñu bànneex ak naqar ñooy koy dal ñun moom daanaka même ñi nga xam ne dañuy teg yeneen anam yoo xam ne sax accident du dara chaque fois ñu ngeen gis ñu présence sol dàllam dem parce que ñun loolu la ñu jàppee ànd bi on on se dit pas camarade on se dit frères benn famille lañ comme benn famille lañ nag lu wokk kii rek keneen ki yëpp looloo tax ni saa yu mel ni amee ba ci sax li xewoon ci marché nga xam ginnaaw ba demee jéem a am lu teg ci gaañu la yëpp ba fii ñuy waxee tey ñëpp ñi ci amoon ay gaañu gaañu ñu continuer faj fii ñuy waxee tey donc lu mel noonu la ñuy wéyal di def njaboot bi ak waaye tamit ñi ci gaañu ñu xam ne affaire bi famille la te képp ku ci nekk ak lu ci mën di fekk lu ñu mës a fàtte parce que ñu tax a mooy mooy li ñu boole moo ñu ëpp doole mooy suñu réew mi nag ñu ci namm te loolu nag uh, wax dëgg yàlla bu ñu ci àndee jàppoo ci nekk ci benn nekk ci famille dina tax incha allah bébét boobu ñu yeggali képp koo xam ne ndox ndox fekk na la ci wala bànneex dinañ ko bokk ak yow def ci li ñu te ni ñu ko defee woon noonu lañ koy defaatee fii te dafa sax am na ñoo xam ne dañu sax xaarul digalu parti diaspora bi lancé nañu benn cagnotte ci Kopar Express ngir fexe eh, dajale le maximum de fonds possible daal di koy mën a dimbalee njaboot donc loolu euh, ci ADN Pastef la bokk te incha allah dinañ ko def